bismillahi irrahmaani irrahim noo ngi sant borom bi tabaraka wa taala di ñaan yàlla jàmm ak xéewal ak mucc yal na dooteeku ca sunu sang ba sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bu loolu wéyee noo ngi leen di nuyu di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ngisat lii nga xam ne moom la bokk ëndaale ki ciy wax daf cey wax mbir yu rëy yoo xamante ne laaj na ñu leeral ko jaami yàlla yi bu kenn wax ne wax ji waxi daanu kat la rek ku ko dégg xam ne du noonu am na ñu koy dégg ci jullit ñi jàpp ne noonu ba pare topp ko gëm ko ba mën na leen a indil gàllankoor loolu danañ ci ñëw ci biir wax ji. ba leen fi sëriñ bi yebal lam leen sartaloon wax leen bu ngeen ci saxee yii maa leen koy warlu loolu ñëpp xam nañ ko. àggoon na ci boo eh, wax ne suuf wax ne suuf Tuuba nit. nee na li ma mën ci ku faatu bu ma ko ci defut tam suuf Tuuba mën na koo def. kon ku fi dëkk te sax fi néew na seenu seen àjjana ajuma ci ko ci seenu jàmm yàlla gu néew seen teraanga ajuma ko ci seen mm, sakku wërsëg bu bari te ñi fi dëkk ñëpp xam nañ ne loolu Sëriñ Tuubaa faggun na ne ko. ngir bañ guddal dafa wax ne. kilifa goo xam ne ci dëkk la nekkoon moo fàggul ña dëkk ca dëkk ba ne ku fa dëkk bu ëllëgee aljanna nga jëm waaye ña dëkk ca dëkk baat moo leen fàggul wërsëg wu ñuy suturloo fii ci àdduna mbokki jullit yi lii wax la ju rëy lii de ña nga xam ne dañoo weddi woon yàlla yàlla yónni ci ñoom sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam xalaatuñu woon a wax wax ju mel nii ñemewuñ ko woon bal alquran andil nañu luy firndeel ni ñoom boo leen daan laaj na leen kan moo moom gis akub dégg kan mooy ki nga xamante ne mooy manipuler àdduna bi nga xam ne lépp ci loxoom la ne kan moo leen di wërsëgal ci asamaan ak suuf boo leen ko daan laaj dañ naan yàlla te ñooñu day ñoom la yàlla yónni woon ci ñoom sayyiduna muhammad ngir mu woo leen ngir ñu dugg ci biir lislaam kon tey yonent bi buñ ne woon saw xeet am na ñu ciy wax ñoo xam ne dañ ne gëm nañ la di woote woon woone ay kilifa lañ ci sa diine ji la yàlla jox muy lislaam dañuy wax ne nit dana fàggul moroomam ne bu dëkkee dëkk ngam bu ëllëgee mu dem aljan bu dëkkee ci dëkk boobee itam nit ka nga xam ne moo sos dëkk ba fàggul na ko war sa wërsëgam wi muy am ci àdduna loolu de ku ko wax yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu boobaa lam cay teg mooy comme bu ëllëgee yawmal qiyaama li ñu lim ñu nettali ne aw nit danañ ñëw bu ëllëgee maanaana saa xeet saw xeet saw xeet bu ko defee ñu ne ma xamoo ñii lan lañ sos sa gan bu boobaa yonent bi lu mu cay teg suxqan suxqan bi maanaa accam wala lu bon ñeel na leen kon comme que sos nañ sama gannaaw loo xamante ne ay njombe la kon ñi yàlla yónni woon ci ñoom na ñi nga xamante ne sayyiduna muhammad ci ñoom la leen yàlla yónni woon la ko yàlla yónni woon ñeme a wax wax ju mel wax ji nag jërul nit ki di gudd ab xam-xam wala mu koy réyle ngir xam ne du noonu ndax ku ne xam na ne yonent yàlla muhammad moo gën ci mbindeef yi dëkk ba nga xam ne fa la juddoo mooy màkk mooy ngën ji dëkk dëkk ba mu gàddaay dem faatu fa ñu rob ko fa moo topp ci màkk ci wàllu ngëneel ñaari dëkk yooyu ñoo gën ci dëkk yi ne ci àdduna te nag dëkk sàngam am na ngëneel sàngam loolu sharia képp moo koy indi du benn waay mooy ñëw daan ne man kët dëkk ba ma dëkk am na ngëneel sàngam ak sàngam ak sàngam bu boobaa dañ naan ko loolu fan la ko yàlla wax wala fan la ko yonent bi wax kon wax jii li jullit bi njëkk war a njëkk wax mooy lii fan la ko yàlla wax wala fan la ko yonent yàlla muhammad wax kon màkk ga nga xam ne fa la yonent bi juddoo muy ngën ji dëkk nga xam ne moo gën ci dëkk yi ne ci àdduna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala yàlla mosul wax ne ku fa dëkk bu ëllëgee aljana bal ay nit dëkk nañ fa nekk faak yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam te ñooy matt may xamb sawara kon bépp dëkk bu nit di wooteel ngëneel te saxul ci sharia màkkaa la gën te màkka amul nga ngëneel lu toll nii kon fan la nit di waxe ne dëkk sàngam bi ma sos wala bidiw sàngam sos ku fa dëkk bu ëllëgee dangay ngay dem aljan ka ko sos moo la ko fàggul kooku ndax moo ëpp martaba yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent bi de fàggulul kenn aljanna ndax màkka la dëkk wala madina la dëkk ndax dëkk booba moo ëpp ngëneel màkka ak madina déedéet loolu rek doy na sëkk ngir nit ki xam ne kon wax la joo xam ne dees koy delloo waaye nag dañuy xupp doomu aadama yi di leen wattandikuloo wax ju mel nii ak ñiy wax wax ju mel nii ndax mën nañoo yóbbe nit ki njombe wu rëy mën nañ ko yóbbe safaan loolu moo tax dëkk yoo xamante ne des fay wax wax ju mel nii nga xam ne tegewul ci sharia léeg-léeg nga dégg ay njombe yu rëy yu fay xew ndax ña fay dëkk dañuy woru ci liñ leen di taaralal wane ne dëkk bi boo fi dëkkee aljana nga jëm bu ko defee ñooñe lañ cey déggee mooy kon nañ def lu nu neex moo tax njombe wu nga koy dégg kon loolu dafay influencer jullit ñi ngir ñu banaliser mooy yàlla yi nga xamante ne yàlla da koo tere wala ñuy sàggan ci wareef yi nga xam ne sharia da koo digle ndax dañoo gëm ne dëkk ba moom moo leen di ràmm ku fa dëkk bu ëllëgee aljanna nga jëm mbokk yi diine du nii bu doon dëkk boo xam ne ku fa dëkk dem aljanna màkkaa ci gën a te amu ko yàlla waxu ko yonent bi waxu ko wala madina topp ca yàlla waxu ko yonent bi waxu ko beneen bi nag mooy ku fa dëkk kilifa ga moo lay fàggul aljanna moo lay fàggul boog wërsëg wi nga xam ne moom ngay suturloo fii ci àdduna ndax am na yaqin ci ne ku fi ku fi dëkk boo liggéey danga nga tàbbi aljanna waaye ñi fi dund itam kenn ku ci ne xam nga ne sa teraanga Sëriñ Tuubaa la ko yorul kon nag ñu ngi ciy soññ bokk teel bi yëpp. mbokki jullit yi loolu boo ko déggee ñu bari bari buñ ko déggee dañu daan yaa ah, eskay yaakaar nañ ca diwuk mbaax yonent bee ko ëpp mbaax te yàlla joxu ko loolu amul kenn ku dëkk màkka wala madina koo xam ne yonent bi moo la fàggul ba muy dund wallis bi mu faatoo wërsëg loolu yàlla moo koy fàggul doomu aadama yi moo ko yor ci loxoom ku mu jaar ci sa loxo ci koo xam ne masalan da nga koy da lay liggéeyal yow nga di ko fay kooka sabab rek la waaye yàlla moo dogal ne kooku ngay liggéeyal mu di la fay fama baalu ko koo xam ne lëggéeyaloo ko fayu la yëgul ne sax am nga boo demee moom lay fàggule wërsëg te yàlla ne wa ma min dabbatin fi l ardi illa ala yàlla ne na amul jenn daaba joo xam ne yaa ngi dox ci kaw suuf muy nit muy bàyyuma li la yàlla di wërsëgal nee na li ngay am ci wërsëg yàlla nee na man maa ko yor illa ala allahi rizquha yàlla moo yor wërsëgu jaam ñëpp moo yor wërsëgu mbindeef ñëpp kon kenn fàggulul kenn lenn lan mooy firndeel loolu mooy ña dëkk ca dëkk ba ba muy wax nañuy fàggoo di am noonu la ñeneen ñi dëkk ci yeneen dëkk yi di fàggoo di am ëppale wuñu leen dara ci côté boobu kon ñépp ngi fàggu di am ci ngëneelal sunu borom te it nit ñi wuute ci wàllu wërsëg wallahu faddala baadakum ala baadin fi rizq borom bi tabaraka wa taala nee na man maa leen gënale ñenn ñi ëpp wërsëg ñeneen moo tax ñëddëkk dëkk ca dëkk boobaak ña dëkk feneen ñoo yem bokk yem ci ne am nañu fa am lu bari lu ne gàññ am nañu am lu doy seenu lu leen doy am na ñoo xam ne la am doyu leen dañoo ñàkk dañoo so dañoo aajowoo nit ñi dimbali leen nam amee ci dëkk yooya booba noonu lay amee ci beneen dëkk bu mu kon bu ñu naxee bu ñu naxee bépp dëkk nag man nit ki mën na faa wax lu mel nii jëmm jii di wax su neexoon mu ne ah man kat mbajaar gëm a dëkk ku fa dëkk boo ëllëgee sa yaram aram na sawara wala faggul ku fa dëkk faggul naa la loo xamante ne moom ngay dunde ci àdduna ndax ñu dëkk ci dëkk ba ña ngay fàggu di dund boo leen waxee loolu buñ ko gëmee dañuy jàpp ne la ñuy fàggu di dund ñoo ko moom fekk ne ba nga ko waxagul ak ba ba nga ganeegul àdduna nit ñi dañ doon fàggu di dund ba nga xëy gane àdduna yow mi ñuy mi ñu koy jiiñ ngay fàggu di dund ba xëy suba yàlla jële la fi ñi des sa gannaaw di fàggu di dund ñëpp yàlla yor seen wërsëg kon mbokki jullit di nanu delloo si sunu xel te gëm yàlla wóolu yàlla doyloo yàlla sunu dëkk kët am nañu fi tafu ay pas-pas lii ci tafu pas-pas la bokk ndax lii kuñ ko gëmloo ba nga gëm ko tafu nañ sa pas-pas te boo xalaatee tuuti Makka ak Madina xalaat yonent bi xam ne ki la koy dig yonent bee ko gën wala kiñ la wax ne moo la koy dig yonent bee ko gën dëkk biñ la koy digee Makka ak Madina ko gën te taxul yàlla wax fa wala yonent bi wax fa lu mel na kon lii lu leer naññi la kon bu bu kenn nangu ñuy tafu sa pas-pas ñi nga xamante ne ay kilifa lañ ci diine waay waay bu ñuy wax ak nit ñi nañ leen wax li yàlla wax ko bu yonentam ñu ànd ak ñi leen jaamu yàlla képp duñ ko boole kenn topp sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam li ñuy def lépp ñu teg ko ci ndigalam ngir mën a ànd yegg ci ngërëmal borom bi tabaraka wa taala lii mooy tax a mucc ku deful lii bu ëllëgee da ngay perte te bu boobaa ab xuloo rek moo fay am ci ñi ñi doon toppee ak ñañ doon topp comme ni ñu ko yàlla nettalee ci alquran te ñañ doon topp bu ëllëgee dañuy dañ ci ñoom ña doon topp matt seen baaraam naan buñ dellu woon àdduna tey danañ dañ ci yéen comme ni ngeen dañee ci ñun tey yàlla nettali nañu lii yàlla lu mu wax la lu tax ñu toog kon nangoo fasse sunuy loxo ñu takk ay buum ci sunu nosug bakkan di ñu diri foo xamante ne bokkul ak fi nga xam ne fam la yàlla bëgg subhanahu wa taala kon bu ñu nangu kenn di tafu sunu pas-pas bu ñu nangu kenn di tafu sunu pas-pas ñu ngi ñaan borom bi tabaraka wa taala boolenu defal tawfiq wallahu taala aalam wa sallallahu ala nabiyina muhammad